alors mbokk yi gis ngeen combat bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante Alioune Seye junior écurie Waalo ak Mbaye Gouye gi gis ngeen Mbaye Gouye Gui da ko fël da fël la ñu mën a wax ndax daf ko ëpp doole donc même bi ñuy lagg xamoon nañ ne masse musculaire bi nga xamante ne Mbaye Gouye mu ngi ci moom nekkul ci Alioune say euh, junior Alioune Seye junior lenn lañ ko mën a wax mu yokk jiwaat entraînement am yi aussi bu ñëwatee ci làmb aussi mu xaw a dal tuuti il était très excité ah Alioune Seye euh, gis nañ euh, bi bëri na. effectivement balaa combat bi remarqué nañ ko gis ngeen sànq coach bi aussi li mu wax mooy waroon na xool ñi mu àndal wala ñi mu àndal bu ñu sentiree ni il était excité ñu dalloo ko te moom leeroon na ko ni bu arbitre sifflé ki nga xamante ne moom mooy mbay Gouy gi du ko xaar ñu félicité Mbaye Gouy Gui di encouragé Alioune Seye euh, junior ñu félicité aussi ki nga xamante ne moom mooy Fallou Ndiaye ci bés bi nga xamante ne organisé na ko fii fi nga xamante ne moom mooy arène nationale peace